Alioune euh, Soumaré maa ngi lay nuyu. déedéet maa ngi lay fay bu baax. voilà Alioune Soumaré nga nekk consultant sportif euh, Karim Benzema moo nekk Ballon d'Or euh, mondial deux mille vingt deux yow ban gis-gis nga si am est-ce que jaar na yoon jaarul yoon. waaw man de li ma si gis mooy jaar na yoon. ndax Karim Benzema année bii ñu génn nii dafa wone xarañte boo xam ne wax dëgg yàlla ci championnat bi mu doon joué. ak euh, Ligue de champions bi mu jël ak équipe de France bi mu nekk ak but yi mu dugal ak nombre de passes décisives yi mu def vraiment mooy joueur bi gënoon fës ci na bi ñu génn vraiment donc li euh, liñ ko jox nii raaya bi ñu ko jox nii mérité na ko bu baax. am na am na ñu naan Sadio Mané moo ko mérité woon euh, surtout ci réseaux sociaux yi jàpp nañ ni ballon d'or bi Sadio moo ko moom ñooñu lan nga leen di wax. ñooñu li ma leen di wax mooy damay dalal seen di leen dëfal parce que quand même xam nga ay sénégalais ñu dañuy far far des fois mais ñi nga xam ne nag ñun. dañuy xaw a en en tant que ancien sportif en tant consultant jàngat yi ñu si am du bokk ak jàngatu population bi en général bien que ñoom xam nañu football bu baax certes mais euh, Sadio Mané saison bi passé li ko xaw a yàq mooy d'abord moo moo Benzema bi muy doon jonganteel mhm. ñoo daje final Benzema gagné ko déjà loolu rek benn benn poñ la benn poñ la su fekkee ñoo tolloo waaw waaw su ñoo tolloon déjà poñ boobu jël na ko ci moom beneen bi mooy Sadio Mané bi ak Liverpool dafa amoon ñeenti ñeenti ñeenti raaya yi mu waroon jël. Mm. mais ñaar bi ñu ba sa cappaandool bi ñaar rek la si jël. Mm. te fin saison bi mu def dafa commencé woon di wàcc tuuti. moo tax loolu yëpp dafa joué ci. Euh, consécration Karim Benzema. li li tax euh, euh, ñu tànn Benzema au lieu de Sadio Mané mm-hmm. Sadio Mané ñu jox ko raaya prix Socrates mm-hmm. mu occupé tamit deuxième place bi naka nga gisee loolu. deuxième place bi ñu ko jox déjà. deuxième place bi bu mérité la nag. Mm. parce que ku doon jongante ak ki ñu jox raaya bu jëkk bi bu ñu la ko joxee mooy yëpp jaar na moom ci boppam Sadio Mané. taxawal na boppam reconnaître que ne Benzema mi ren mérité na ballon door parce que ku nekk na footballeur bu nekk tamit. bu ñu waxante dëgg waaw boo wéetee xam ndax kii mérité na wala ko mérité mais bii moom. ñëpp d'accord ne Benzema mérité na ko même suñ bëggoon Sadio Mané jël ko. Hmm, deuxième place bi normal. deuxième place bi moom normal na ñu ñu ñu taxaw si prix euh, beneen bi ñu ko jox <laughs> prix Socrates euh, déjà lan mooy loolu euh, nga mën ñu ko expliquer tout. waaw prix Socrates bi mooy prix boobu dañu koy jagleel jou footballeur bi nga xam ne si wàllu social c'est-à-dire si def jëflanteex askanam lu baax. Hmm. daf ci fës. te Sadio Mané gis nañ ne boo demee bàmbali def na fa l'hôpital boo demee bàmbali def na fa lycée boo demee bàmbali tabax na fa ay juma boo demee Bambali kër gu nekk dina am lu mu fa dugal. Mm-hmm. weer bu dee. école yi yi yooyu yëpp boo ko bañalee ñu xam ne kii kat fi mu jógee ak fi mu egsi ak li mu def mënoon a def leneen te kenn du ko ci wax dara waaye loolu mu def tax na ba ne ñu ah prix Socrates bi nga xam ne Socrates si boppam brésilien la woon boo xam ne lu baax la daan def. social la daan def. ñu xam ko ci loolu moo tax ñu jël prix boobu jox ko mu nekk prix bi ñu jëkk a teg ci àdduna Sadio ne jëkk ko jël ci àdduna loolu tamit Euh, euh, bànneex c'est bànneex la historique la nga boole ko jël deuxième ba pare jox la bi kooku ndam munul weesu loolu. mais est-ce que mën nañu wax ne est-ce que prix boobu sax jaar na yoon parce que euh, au niveau mondial la ñu wax fii ci Sénégal mun nañ na waaw wala peut-être Afrique mais est-ce que au niveau mondial Sadio maane moom mooy le jour le plus social boobu tamit beneen laaj la. waaw loolu c'est vrai que su le sur au niveau mondial ñi ñaa ngi def lu rëy a rëy ah. Sadio Mané mën nañ ñu bari. ñu bari am nañu ay fondation te fondation boo ko déggee mooy ñu ngay def lu baax a baax pour mm. askan ma waaye kii dañ ko encouragement la war a doon c'est-à-dire que exemple la ñu bëgg a joxe waa tous les africains man du ma wax sax mondial mais mm. damay jël côté Afrique mm. Afrique yàlla dafa def mu nekk euh, continent bu bu xaw a am ndóol léegi nag su amee benn doom boo xam ne yàlla wërsëgal ko mu am koom-koom bu bari muy xalaat askanam man foofu côté boobu côté boobu moo tax ñu jox ko mais ba pare def def na nag hmm. def na parce que tamit est-ce que tamit dañ doon defal Sadio Mané rek comme que xañ nañ ko ballon d'or bi waaw mais ndey Kumba ndey Kumba c'est une question damay laaj waaw da ngay laaj loolu waaw ah, mun naa mu nekk seen xel gaa hmm, hmm. ñu def ko mais xam naa ne daal prix boobu ñu ko jox Socrates bi mérité ko ndax li moo def ak fi mu jógee ak nga nekk Afrique nga xam ne fii koom-koom def fi xaw a metti am ñoo xam dañuy jël def seen poche di xaar bu ñu paree lu ñu cay def mm-hmm. mais moom moment bi muy joué ma ngay ah, def ngi partagé waaw mi ngi partagé donc vraiment côté boobu aussi boo boo boo boo pesé balance bi par rapport ak ñële di nga ne li ñu ko jox wax dëgg yàlla mérité na ko euh, laaj si ba léegi si ballon d'or bi mm. euh, mondial bi surtout gis nañ ne africain yi pour ñu jox leen ko jafe na euh, à part George Weah amatul amaatul beneen joueur africain boo xam ni gagné na balon d'or bi Benzema gagné démb est-ce que mën nañu wax ci racisme moo ko waral wala football africain africain moo dese lu baree bëri. waaw man xam nga racisme sax du ma bëgg di ko wax parce que euh, euh, FIFA ak instance football yëpp ñu ngi xeex racisme. Mm-hmm. gis nañ ne même si seen maillot sax dañu gis non au racisme ñu ngi koy ñu ngi koy xeex. Mm-hmm. bien que des na ay quelques tuuti tuuti tuuti yu fay des mais yaakaar naa ne comme ni nga ko waxee weyaa jëloon na ko quatre-vingt-quinze bi mu koy jël. ñëpp xamoon ne nit ku ñuul la mais jël na ko do ci kanamu tubaab yëpp bii Euh, Sadio Mané dem ba nekk kudaa kudaax Benzema. nga war a xam ne kon africain yaay ñu ngi leen jox seen gëdd. c'est que bu njëkk ba critères yi ñu daan yi ñu daan jël lañ dund woon boole ay kan beex ay yenn euh, matchu équipe nationale yi ñoom dañ yaakaar ne coupe du monde rek la moo waroon nekk critères yi wala championnat européen. Hmm. léegi nag sa sa équipe ak sa participation ko ndax li ngay sa taxawaay ci club yi mi ngi commencé ñu ngi koy commencé jël en moo tax. sa africain ñu leen mu commencé di dugal ku mel ni Sadio Mané gis nga fu mu fu mu egsi nii mhm. déploré mooy ku mel ni Weah waaw ku pardon ku mel ni Eto'o mhm. ku mel ni euh, ba am na benn moment ñu ngi doon diir mbagg tubaab yëpp mais c'est que dañ fa dajaloon ak ñaar ñoo xam ne nag wax dëgg yàlla kenn mënul bëreex ñoom Cristiano Ronaldo mhm. ak ak ak Messi quinze ans yi passé yëpp ku fi taxaw ñoo la ñoo fi nekkoon te ñoom ñoo nekkoon les meilleurs joueurs moom moo tax man je pense que du question racisme mais dafa toll boo jamono boo xam ne ñaan ñooñu kenn mënu leen kenn mënu woon bëreex ñoom. Mm. mais mais mais lan moo manqué africain yi kon si côté boobu. africain yi leen manqué mooy d' abord euh, régularité xam nga africain en général. Mm. dafay def dafay def carrière am dafay gàtt. dafay def dara gars yi commencé di yuuxoo naan moom la rek. mu mu mu mu xamul waaw mu wàcc alors que ku mel ni Messi bi nga ko commencé dégg yàgg na. te mi ngi si ligne ba. ba léegi bàyyiwul mi ngi fi ba léegi mooy capital Argentine ku mel ni ku mel ni Cristiano Ronaldo ay 37 ans ngay dégg mu am ba ba léegi mooy capitaine Portugal loolu moo jafe Afrique africain carrière bu en général dafay gàtt. ba tax duñu am chance bi waaw parce que loo yàgg rek. ku mm-hmm. yàgg si teen bak fekk la. boo yàggee ci ci ci ci milieu bi rek bu yàggee di nga am raaya. Mm-hmm. Euh, beneen ponk bu am solo quelque semaine rek moo des ci coupe d' Afrique coupe du monde plutôt euh, deux mille vingt deux euh, pour yow ñan ñooy réew yi nga xam ni peut être quatre wala cinq pays yoo xam ne war nañu mën a gagné coupe du monde deux mille vingt deux. waaw boobu buñ ko laajee ci xel xel yi si Brésil lay jëkk a dem. ndax li mu fi def jàlloor yi mu fi am yëpp. donc Brésil saa yoo ne coupe du monde Brésil ngay xalaat boo paree teg si ay Argentine parce que ñoom jàlloor yi ñu fi yàgg def après teg si nag ay ay équipe européenne yi ay France sax ay mel noonu daal ak ay Hollande nga xam ne ñoom tamit wax dëgg yàlla mosuñu jël coupe du monde waaye dem nañ ñaari yoon final. te à chaque fois bu ñu finaloo équipe bi organisé lay équipe dëkk bi organisé lay dajal moo tax muy mu koy perdre souvent donc Hollande. Brésil ñooñu mun nañ leen citer comme ça euh, au pied levé. Mm, pays africain yi nag koo si gis mu sori ci compétition bi. pays africain ren moom ki si gën a mën a sori mooy Sénégal ndax taxawaay ndax mooy champion d'Afrique mm. ndax classement FIFA tam depuis ñaat ñeenti at pratiquement mooy mi ngi nekk ci kaw donc naturellement Sénégal mooy pays africain bi nga xam ne moo gën a jege bokk ci favori mais gis nañ ni euh, Sénégal googule équipe bi surtout bi mu amee euh, bi ñu jëlee Coupe d'Afrique de nation ba léegi joueurs yi bari dañu am ay jafe-jafe ci seen club euh, joueurs yi bari dañu seen carrière dafa xaw a taxaw est-ce que loolu tamit du nekk handicap ci compétition bi. waaw loolu moom xaw na indi njàqare si bopp nit ñi ndax comme ni nga ko waxee Sénégal bi mu jëlee yooyu ba pare dafa jékki-jékki rek. mel ni daal ñëpp a wàccandoo. ñii ñoom amuñu sax club. ñii ñoom seen club jouetuñu ñii ñoom dañu changé club dem nekk fa daal genre mu nekk même Sadio Mane bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy. Sadio Mané. waaw mooy si kaw. waaw moo nekk ca kaw kaw mooy ndeyu mbili gi waaw. mooy suñu star gis nañ ne benn jamono commencé woon na di wàcc trop avec le Bayern. Mm. temps yi sax yi la commencé di. taw a ku mel ni Edouard Mendy sax moom faf jouetul. remplaçant la Kalidou Koulibaly gis nañ mu ngi am ay jafe-jafe yu bari en Angleterre ak Chelsea taxawaay bi mu amoon vraiment mu ngi wàññeeku donc loolu mooy njàqare bi mais comme des na encore weer comme football li ñuy wax ci football dafa gaaw mm-hmm. football changement def ci gaaw lool xëy na d'ici d'ici d'ici une semaine deux semaines joueurs yi nañ jëlaat seen forme d'antan. Mm. yow coaching Aliou Cissé doy na la pour coupe du euh, coupe du mille vingt deux bi jàpp nga ne coaching bi mën nañu yóbbu sori waaw wala déet. waaw coaching Aliou Cissé nag yàgg nañu indil tuuti euh, jafe-jafe ndax xam lu tax mun indi jafe-jafe mooy. Mm. Aliou Cissé dañ naan wax toujours ne euh, côté boobu def ci xam nga dañ ko teel a jox équipe nationale ba tax na xam-xamam mi ngi commencé di màcc lax avec les années. mais am na temps yoo xam ne vraiment sur le plan tactique amoon na tuuti jafe-jafe léegi ñu ngi koy woowee ay tactico mooy léegi progressé na hmm. parce que léegi mi ngi déglu nit ñi hmm. avant daawul déglu nit ñi loo ko wax rek mu foog ne critique la hmm. mer alors que dañ doon wax rek pour mu defaru léegi mu ngi koy commencé comprendre man nag yaakaar naa ni su ko du moon suñ ko dooleel waatee ay ñu xarañ. Hmm. ñoo ñu encadré ko mais ba tey mooy nekk patron parce que patron bi moom mooy décidé mais nit ñi am nañ droit jox ko seen xalaat. su match bi voilà waaw match bi buy daw. ñi teg ci kaw tribune nga xam ne ñu tiim terrain bi di am une vision panoramique du terrain di ko jox ay kii di ko envoyé message toujours naan ko attention hmm. kii mi ngay wàññeeku attention kii def naa nekkatul si marché bi ak yooyu wala changement bi bi moo gën bi hmm. bu ko dogloo rek yaakaar naa ne waaw parce que Sénégal am na ay joueurs yoo xam ne vraiment mun nañu jëflanteex ku nekk. Euh, Yankhoba Diattara mooy ministre des sports bu bees bi coow li bari na parce que Matar Ba lañ doon xaar Matar Ba mooy ministre bi nga xamante ni ci euh, bi mu nekkee ministre des sports ci la Sénégal gagné coupe d'Afrique des nations mu nekk quelque chose d'historique bi ñu ko euh, wàccee teg fa Yankhoba Diattara ñu bëri jàpp na dina indi plutôt handicap ci compétition bi ñu jëm di coupe du monde yow déjà naka nga gisee loolu le fait que Matar Ba du ko ci ñuy dem fële ca Qatar. waaw loolu su ma ko doon xayma d'abord dama koy jël su doon football la. dama naan Matar Ba dafa joué éliminatoire yi ba pare ñu qualifié ñu ne ko doo dem coupe du monde loolu laa ko boobu laa ko jàppee beneen bi. mooy euh, euh, ba Diattara indi nañ ko ba en tout cas ñu bari xamuñu ko ci milieu sport bi Matar Ba nag comme ni nga ko waxee dafa nekk ministre boo xam bi mu fi nekkee si la Sénégal jël. Coupe d'Afrique des Nations que depuis loolu musuñu ko am si la bi mu fi nekkee tam si la Sénégal qualifié ñaari coupe du monde yu tegloo mais Matar Ba xam naa ne euh, li li tax ñu gën ko fa jëlee c'est dama yaakaar ne man sama gis ku bopp ministre football rek la woon football bi daal moom xam naa ne moom la mu ci waroon def moo moo ko gënoon soxal def na ko def yeneen yeneen waaw yenn sport yi vraiment jooytu nañu fu nekk day léeg sax dañu am comité dañu am sax bi avion bu ñu demee donc loolu aussi je pense que si li ko gën a wa yàqal ci la bokk. Hmm. donc mais a Diattara moom li ñu koy ñaan mooy nii li Matar defoon ba nga xam ne saafoo nax fédération saafoo euh, staff technique bi équipe bi mu def ko parce que joueurs yi aussi de temps en temps dañu bëgg gis kilifa kilifa euh, discipline boobu ñu wax ñoom ànd ak ñoom ñu mun a. Euh, saafonte ba nga xam ne équipe bi dina am ambiance boo xam ne. dina leen permettre ñu évoluer. voilà ñu jeexalee tuuti si Sadio maane est-ce que Sadio maane euh, si club bi mu nekk di Bayern Munich est-ce que mën na fa am chance euh, liggéey fa ba ba gagné li nga xamante ne moom mooy ballon d'or mondial bi ko ñëpp yéene est-ce que Sadio maane mën na réaliser rêve boobu ca ca Bayern. waaw mën na ko réaliser parce que dafa jóge ci équipe bu mel ni Liverpool. dem ci Bayern donc équipe Bayern moo gën a rëy bu Liverpool boo koy xool ci histoire Bayern équipe bu mag a mag a mag la boo koy boo koy boo koy méngale ay Real nga koy méngale ay Barça donc mu ngi si club yi gën a rëy actuellement euh, euh, au monde. Mm. donc foofu te club yooyu au départ objectif bi leen fixé mooy lépp la ñu jël coupe bu ñu teg ñoo ko war a jël xam nga boo boo boo boo nekk ci équipe bu mel noonu jël coupe bu façon coupe bu ne nga jël ko fa. forcément loolu daf lay propulser pour nga mën a. da yokk fit yokk la aussi taxawaay pour ballon d'or. donc euh, Benzema Real bi mu nekk moo tax xam nga Real day jël lépp jël donc mm. da fës donc ba ba pare. Mm. performance yi mu def équipe nationale ba qualifié ko ba jë jox ko kaan qualifié ko coupe du monde bi su ko continuer euh, forcément dina mun jël ballon d'or ndax Benzema bi mu jël ballon d'or waaw maa ngi koy fàttali sànq am na 34 ans. te alors que euh, Sadio Mané mi ngi si une trentaine d'années donc dese na ko encore ñaari at yoo xam ne yow xam ne yoo war na si mun a taxaw taxaw boo xam ne pour jël ballon d'or. ballon d'or bi ñu gis ni Sadio bi mu jógee Liverpool depuis loolu club bi dafay am ay euh, difficulté yu yu baaxee bari defe di en tout cas bari na euh, yow loolu ban jàngat nga si am. waaw loolu mooy wane ne taxawaayu Sadio Mané dafa amoon solo si équipe bi. Hmm. parce que dafa leen daan may fit. bu équipe bi daan am tuuti jafe-jafe moom dafa daan jël responsabilité am dem dugali après pousser équipe yi vers loo haut bi mu demee nag loolu naturellement dafay day wàññi doole équipe bi mais comme équipe bu mag la tamit ñu ngi góorlu actuellement gis nañ ne ñaari match yi mujje en Ligue des champions gis nga victoire bu mag bi ñu am. ah barke démb bi euh, cité bi nga xam ne moom la ñëpp ragal ci àdduna. Mm-hmm. ñu dóor ko Salah dugalaat moo lay wan ne ñu ngi actuellement. waaw ñu ngi defaraat demu Sadio Mané ñu ngi koy commencé digérer ndànk-ndànk. mais mais pour yow lan moo waral dem. waaw Sadio li tax mu dem mooy dafa dem toll ba benn moment li mu waroon jox Liverpool yëpp jox na leen ko Liverpool toog na 30 ans. mooy fanweeri at jëluñu ligue championnat foofu moom bi mu ñëwee si la ko Liverpool am mu jël fa Ligue des champions tamit jël fa lu ne coupe yi fay teg yëpp jël na ko ba pare aussi mu demee benn moment aussi mu am benn genre euh, wuj kujje moox sala mm. te si biir kujje boobu euh, encadrement bi daal far xaw a faral faral faral sala loolu yëpp lu lu mu lu mu dund la muy lu met lu Sénégal yëpp dundandoo donc moo tax bi mu demee benn moment mu ne foog mu génn dem seeti leneen loo xam ne dinaa tabaat pour gën a mën a. nekk mu dem faax la baax na. bon baax parce que yow gisoo benn Sadio Real Madrid. waaw Real xam nga moom Real bëggoon na ko fii mhm. mais moom choix am ci Barça la ko. si euh, Bayern Bayern la ko def. Mhm. mais deful choix bu parce que équipe bu mu dem <laughs> benn que euh, maanaam euh, Sadio li mu bëgg est ce que mu demoon Real du ko ko gaaw a jox li mu bëgg maanaam ci Ballon d'Or mondial parce que yaakaar na ni fi ñu toll nii loolu mooy rêve sénégalais di rêve Sadio Mané. waaw loolu loolu mën na ko fa am au Bayern aussi parce que am na ay joueurs Bayern dans le passé yu amoon ay Bayern comme ay Franz Beckenbauer ak ñooñu ñëpp. na ko fa am parce que Bayern équipe bu mag la. wala Real su demee du yomb mu imposer wu. woy Sadio Mané Benzema voilà yaa Vinicius waaw xam nga nag ñoom ñaar ñoo nuroo presque rôle attaquant buteur donc mm-hmm. donc Real bëggoon na ko benn moment mm-hmm. mais finalement moom mu jël option wu Barça voilà Bayern de Munich Alioune Soumaré mi ngi lay jaajëfal waaw Ndeye Coumba man maa lay gërëm di la sant bu baax si invitation voilà euh, may fàttali ni consultant sportif nga euh, bokk tamit euh, ci groupe bi Alioune Soumaré ñu koy remercier bu baax a baax